gën euh, ñoo defal tawfiq bu baax ak tey tey ñu ngi suñu émission yaru ak yare numéro 13 dëppoog le 4 octobre 2023 niñ ko baaxoo di defee alxames yi njëkk si weer wu ne ñu toog ak suñu mbokk daara Serigne Makhtar Kébé di waxtaan ay tomb yoo xam dana yitteel daara waaye dana yitteel itam képp koo xam responsable nga yore mbooloo euh, xam wan yoon la ñuy jaar pour mbooloo mu ñu mën leen teg ci aw yoon ba résultat ya tax ñu samp loola Euh, mën faa juddoo te bu fa juddoo itam di njëriñu waaye nag du ñu tàmbali te nuyu wuñ mbokk yi nga xam ni ñu ngi am na ñun saa su suñu émission yaru ak yare waaye di ci feeñal mbégte si maxtaar di ci sant bu baax hmm. ci ay gox yu fasantikoo hmm. ba si jiitalee ki nga xam mooy kilifa daara ji muy Alaaji Serigne Seck mi nga xam moo ñu yombale liggéey bi waaye di ci jaar itam Cheikh Mouhamadou Fadil Seck mi nga xam mooy coordonné liggéey bi hmm. ak suñu Ahmed Dame Touré ak mbooleem ñi nga xam dañu liggéey si c 3 Euh, te kenn munu see dem bàyyi morom ji ñoom ñëpp ñu ngi rafetlu liggéey bi. Mm-hmm. waaye itam di nuyu suñu mbokk mi nga xam ne toujours moom lañuy ñuy àndal liggéey muy suñu max suñu waxtaan si la. Mm-hmm. Euh, nga xam ni ginnaaw bu émission yaru ak yaru jàlle moom mooy toog ak suñu maxtaar Kébé. Mm-hmm. di ñëw ci boole alxuraan. Euh, ak ni mu fasoo ak itam njariñ li si nekk si ci li si nekk si ay njariñ ñu yaatoo. itam mbokk yi ni ñu koy apprécier itam saa su di woote. di wane njariñ la waaye di nuyu itam suñu caméraman bi nga xam moom la ñuy àndal saa su ne muy sëñ Moussa mm-hmm. Sarr si mm-hmm. liggéey bu set bi xam naa sëñ mm-hmm. Maxtaar Kebe dañ lay bàyyi nga nuyoo ñu dugg si waxtaan incha allah. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu sëriñ Mbàkke Sourang maa ngi lay nuyu bu baax di la ziyaare di nuyu bokk yi nga xam ne ñu ngi topp wax ji ci jumtuwaayal xarala yu bees yépp tàmbalee nuyoo bi ak siyaare bi nag ci g 3 mi nga xam ne lépp rek jataay yi ñuy def ci yu mel nii yëpp moo ko taxawee ka ca booba di alaaji sëriñ Seck sëriñ Fallou maa ngi koy nuyu bu baax di ko siyaare sëñ Dame Touré di siyaare it euh, waa C3S fu ñu mën a nekk ci gox goxaan yi ci biir réew mi di jot li nuyoo ak siyaar suñ mbokk suñ xarit suñ Omar Silla mi nga xam ne ci kanam tuuti dana ñëw ci émission boole bi waaye di nuyu sëñ Moustapha Sarr suñu technicien bi di ko siyaare bu baax tey nuyu bokk yëpp macha allah sëñ Moustapha Sarr waxtaanee bu ñu xoolee suñu numéro bi jàll muy numéro 12 ñu ngi woon ci diggante mm-hmm. euh, mudir ak mm-hmm. muallim mm-hmm. borom maanaam borom daara ji ak kii jàngale ak xale yi jàng ñu ñëwante ci façon boo xam ne bu bu yaatu la koo xam ne jàngalekat yi rafetlu nañ ko waaye ñi nga xam ne tam ay njiit la dem rafetlu nañ ko mu mel ni ki amoon na ay jafeñ-jafeñ euh, jafeñ-jafeñ yooyu nag euh, lan mooy solution bi yàlla dogal nag tey ñu tànn koo xam ne jàpp nañ ni def na ko ci ci ci ak teel mhm. waaye tam taxawu ko ci diggante bu yàgg mhm. génn ay kàngam samp ay kàngam mhm. muy Cheikh Salif Mbacké kon mun nga jëlee comme modèle ak référence pour que daara euh, mën a stable jàngalekat bi mën a jàngale lu am dara lu ko jafe borom daara ji itam daara mën a stable ñu ko jox euh, la leen fa tax ñëw ñu am ko lan nga ñu mën a jox model ci Serigne Salif Mbacké digganteem ak tarbiya ak taalim jërëjëf jàngale jërëjëf sëriñ Mbacke jërëjëf bokk yi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan dañu topp ci yaru ak yare muy émission boo xam ne itteel na leen bu ñu waxee ci Cheikh Saliou Mbacke ak yaru ak yare dafa am lu mu génnee ci làmmiñu boppam mu ne moom day xam na ne liggéey bii mu nekk te mooy jàng ak jàngale ak yare sëriñ Touba ko ko sant kon bokk na ci xusnul idaara muy rafetu taxawu dara nga gëm ne da nga cee am ndigalal sa kilifa moo taxoon lu jamono masaan naqari naqari ak lu jamono masaan neex-neex ak lum xat-xat ak lum tabja tabje ba mu ko jàppee muy ndigal lu jóge ci sëriñ bi rek daanaka ci la amee lim am lépp waral na nag ci diggante jàng ak jàngale ak yare mu teel coo jublu ndax ci biir njàngum xam-xamam ci la tàmbalee di jàngale alquran ca mbaakol te boobu mi ngi jël bind ci diggante alfiya ak ay maqaama ak shongara kon lu bi muy bi muy bi muy jeexal jàng ci la defa daanaka formation yaru ak yare boobu def ko muy métier moo xam ne it waa ko Sëñ Tuubaa ñi ci ñëpp dañ daan wax naan sëñ son bi laaj jël ak sëñ saalihu fii ngeen toog yéen ñii jàng jàngale sëñ sal daanu fii ngeen toog maa fi waroon a toog kon yéen ma fi toogal moo tax may defe leneen su ngeen fi noppee toog nag maa fi war a ñëw toog kon daana jox ak ña muy jàngale it pouvoir fi nga toog maa fi war a toog soo fi noppi a toog maa fi ñëw toog loolu mooy samp naa la loolu lay tekk ci olof samp naa la fi nam la fa tege nga toog faat nii la lay bàyyee say mbir nga di ko doxal mu di la ca laaj feeg ma ngay aw yoon mu ànd ca ak yow kooku ca ci nul idaara la bokk nga diriger bàyyi nit ki ak xelam mu def ci mahaaram ci compétence am maanaam ci man-manam su demee ba gàkk nag mbaamu joom yow mi nga xam ne yaay boroom kër gi wala yoway boroom daara ji wala yoway boroom liggéeyukaay bi muy usine beeg lu mu mën a doon su boobaa bu ngeen toogee ci jataay boobee nag nga jubbanti ko taqwim rek lay doon ak takk ak ak ak ak ak ak irshad maanaam orientation. nga day fekk yow mi liggéey liggéey bi mën nga ko. man nga ko waaye moom mi lay jubbanti itam. man na ko mën na ko. kay ndax heure bu la jubbantee di nga nangu ni. waaye day gis ni foofu ñun ñu bari dañu ci am waaw da nga mën nga jël nit. ngeen bokk ci ab liggéeyukaay. mu wàcc aw yoon nga corriger ko mu jaale fa ngeen tàqali ko. parce que nanguwul. nga mel mel naa lu nangu nga tiim ko pour jubbanti ko. ñaari aspect kii bëgg a jubbante daa am nu mu war a mel su ko defee ki ñu jubbante am nu mu xam nga Cheikh Saliou Mbacké moo xam ne ma nga jàng ma nga tàmbalee jàngale ci 1929. jàpp 1930. su toogee Makhtar Kébé mi nga xam ne mi nga tàmbalee jàngale 1980 jàpp 1981 dañu xool fatara samaniya bi. maanaam sut na ko daal si lépp. ok su boobaa nag Cheikh Saliou Mbacké buy wax ak Makhtar Kébé. day wàcc ba tolloog moom da ko li muy njëkk a wax mooy say baax baax sa law jàmbaar nga hmm. taxawaay bi dama mat na sëkk ba nga ubbee ko daal waaw dé déglu xosnul idaara hmm. liggéey bi da mën na sëkk xam naa ci sa pëste bu wér a wér wér hmm. sa law feeñ ni ki sab liggéey ba sa xol see seet ma ne waaye nag daal di dugal nag message bi waaw afallahu anka lima azinta lahum waaw léegi nag su boobaa korisi boobu mën mënu laa naqari directeur bu mu mën a doon ak jëwrin ju mën a doon a borom liggéey ki ngay bëgg a waxal boo ko gëddu gërbaloo ko éliminé woo ko ci pouvoir lu da nga koo wax ne ko yow def nga lii def nga lii waaye nag lii bokku ci ñaare. Mm-hmm. dana baax ci ki nga xam ne moom mooy bëgg a joxe. moom bind la koy def sax. bind la koy def fii sawar daal. Cheikh na fi benn waay rek laay wax. Mm-hmm. wetu Thiès. wetu Thiès diggante Thiès ak Mbour daara dañuy wax xabbaan tam ten tam tolloo campement ngexoox dend ak taset kooka dafa duma ak gone bi mu dumaa gone gi sëñ bi dégg duma ya yónni u fa nit keneen ndax bu fu yónnee keneen ak kooka pas-pas bi sëñ bi xam ca kooka bu demee du xam nu mu koy waxee da ko yónnee wata ne ko na ci dugg ñëw maam oto la yónnee <laughs> ngir waaj a kepp dugg ci dugg ci ñëw te bi mu ki dóor xale bi waaw te da ko ne nag boo demee ne ko rek dama koo soxla hmm. waaye bu mu xam sax lu ma koy doyee sëñ daara bi mu nee cëpp sëñ bi dafay seral seral seddal da ko fee bàyyi ñetti fan yoo xam ne ci biir kër gi ci biir ndeeg toog di waxtaane yeneen la yu bokkut ak lu yooya ba bis bi mu bëggee waxtaan ak moom ci domaine boobu trois heures du matin la ko woo ñoom ñaar kepp sëñ bi tàmbali ci lu baax lu mu fi mas a def njàmbaaram gi ni mu ko yéege ak li ko ci xibaar yi ko fiy fekk si mm-hmm. ba waa ji defe ne lii lu mu doon ci guddi gi sëñ door ko ne nag sa laaw de bii di xëy yaay bilaa bukkaay moo tax ma woola déedéet dégg xool fi ne loolu message boobu da ko ne rek dama lay jottali lu ma sama uh, sëriñ ba waxoon bee di xëy yaay bilaa bukkaay tax ma woola sëñ bi daal dina maana bi di gindil sama njaboot te buñ jooy maanaam sama njaboot gi te buñ jooy te buñ te buñu jooy gindil sama njaboot gi te bu ñu jooy nag ndekete kon sëñ bi buggul ko dóorum njabootam hmm. te yow ngay jàmbaar joo xam ne xam naa sa pas-pas te li nga fi am yéene naa la nga jot ca te lépp lu koy gàllankoor bëgg naa mu bañ laa dal loolu la wax ak waaja ba ci noppee na ko nag gone yi nga xam ne ñoom ñooy jàng alxuraan dañoo waroon a gën a góor góorgóorlu bu baax ci njàng mi ndax xamuñu ne day li sëñ bi taxaw ne laqante ni yaa maalikal alfaawa daan ne dem déedéet ne <gasps> ne lu mat minute daa ne wa baytu raqi xisbaka alxufaada daa ne nag sëriñ bi de la yàlla may lam ko may ci xam wëlbati ko ci njabootam la suñ borom di yéegalee booy mokkal alxuraan yi kon moo tax kon murit war naa jàngi alxuraan en tànk nga bokk ci kuréel boobu nga xam ne sëñ Tuubaa leen di yéege lan moo naqari ci jataay boobu sëñ Mbàkke kon bi mu ci noppee nag oto boobu daa di yóbbu waat mu dem ñibbi kon bokk na ci lii tax nga mën a wax ak sa emploi nga xam ne yim jiital yëpp daal waaw ci teral gi ci ubbeeku gi waaw wane liggéeyam bu rafet waaw ba nga xam ne waaye dafa jàpp ni sax waaw dañ ko waroon nomé wala dañ ko war a seexal waaw ko corrigé nag ci biir ko corrigé léegi kon mooy côté bi nga xam ne hmm. mooy ki toog di kilifa liggéey ba ca daara ja mooy kilifa liggéey ba ca usine ba mooy kilifa liggéey ba fu ne mais loolu laaj na ak dal de mm-hmm. laaj na ak dal ak bañ a ndax fi la plupart boo juumee duñ la du la jéggal alxuraan dane idfa billati hiya ahsan fa ida alladi baynaka wa baynahu adaawa ka annahu waliyun xamim bala ngaa am wilaaya ci nit ahsan ngay jëfandikoo idfa billati hiya ah, ahsan li gën a rafet bu nit ki defee lu ñaaw yow lu rafet nga joxee la gën a rafet hmm. su ko defee nag fa ida alladi baynaka wa baynahu adaawa muy ki nga amaloon ay problème nga xam ne yéen lu mu la mën a tooñ ak lu mu la mën a yàqal hmm. ka annahu waliyun xamim day bu na la sëñ bi jéggal ma mujj doon soppe boo xam ne moom moom maanaam naa doon noonu ba faaw ba mu ne jéggal ma rek mujj wëlbatiku doon soppe bi ci des kon ki nga xam ne loolu dafa mel lu jafe la de illa alladina wa maa yulaqaaha illa du xadin ki nga xam ne mooy waru karu nag kiñ koy wax kon léegi sëñ Saliou woo en tant que ku woote nim jiital ngir nit ki mën a dégg lim ko wax en tant que mudir daal en tant que mudir mbooloo léegi nag lan moo war ci ki nga xam ne nag moom lañ woo moo def njuumte li moom mooy ki fi ñëw di jàngale wala mu ñëw fi di liggéey ak lu mu ko fi mën a indi ba ci chauffeur ba ak keneen ak keneen ñëpp dugg nañ ci biir kooku ci boppam buy ñëw bu fekkee takk mu baaxoon na formation ba bi ak yar ba nga xam ne moo jiitu woon formation ba doo ko wax jàmm mu lay waxu ay li ngay wax dana ko déglu te dana xool ne moom moo def njuumte ndax dafa bokk ci li gën ci nit mooy al i'tiraaf bil xata boo juumee nga nangu. boo juumee nga nangu. waaw li koy tax a nangu nag ca njàng ma la bañ koy jàngal moom mm-hmm. bi mu tàmbalee di jàngale éducation fa mu toll ci yar dana tax nit ki am deret ju mën a dal parce que deret day fuur ak a dal mm-hmm. nit ki buy ñëw nga woo ko muy ñëw dikkiin bi muy dikk ci sa bureau ni ko frappé bunt bi toog ca banque ba ne lax jàkk ak ñaari bët. bu la waroon a jox ñaar loxo jox la benn bu la war a digloo ñaar nopp dëngal la benn kooku daanaka jirul wax dafa pare na pour xeex dafa mel ni al jaww xayru muhayya kenn préparé wul jaww jooju mm, mm, mm. li ci gënoon sax mooy mudir bi ne ko demal foofu foofu moom solution mënut fa solution bu rafet moo tax gis nga alxuraan nusuus bu ko jëfee ko nusuus nusuus mooy bi muy wax ci mbirum soxna yi naan wallaati taxaafuna nusuusahunna na aywa nusuus nu suus dara xewagut nu suus muñ ñi la def ne xujj ne xam lu mooy nu suus maam nga xam da nga ko da nga tiit ni mën na ko def mën na ko def taxaafuna nu suusahu na lan mooy nasasa ah. yaani waqafa ala ala satax mu mhm. ko taxaw ci balcon mooy moo mooy annasus mhm. nit ki nag bu fekkee day ñëw nag léppam taxaw jikkoom yépp taxaw dooleem yépp taxaw kooku baaxul nee na boo koy ragal ngay gaaw jël say matukaay balaa loolaa taxaw ndaw si doo ko bàyyi ba muy ba muy wax mbaa nga bàyyi ko ba muy def nga di ko waar xaw fu mooy du ñëwagut te nga ne mën naa ami ëllëg kon mudir bi buy bëgg a wax ak ki muy jàngaleel na ko teel a waxal condition yi daara ji teel ko bi jàmm di am ñuy bokk di naan attaayaaka naa ni bosaab pourtant loolu li si alxuraan di wax dafa bëri la même wa in wa in xiftum shiqaaqa baynihima la xiftu jàpp nga ni problème nar naa am seen diggante waaye nag léegi problème ba ba yëf ñi di ba ngeen di naan attaaya hmm. ngeen di am jàmm mu lay laaj daara ji sa message yooyu ci nga ko war a dugalal ne ko lii moo fi am hmm. su ko defee nga di ko répéteel ba bés bu fa amee mu xam ne moom la woon nga ko lii moo fi am hmm. su fi amee dana am tiitaangeel xam na ne li nga doon ragal moom def na ko def na def na délit mais nit ki ñëw nga jàppandil ko yëpp dégager say responsabilité ci yëpp bàyyi ko ba mu def njuum te nga nekkoon nag tey nga dee danaa lii xaw ma ko woon kon xosnul idaara bokk na ca li Cheikh Saliou di def mm-hmm. boo defee njàmbaar day ñëw di la sant say si ñëw ne war ma diw mm-hmm. nga di mun a salaaw day gone yi de moom bi ma leen seetee njàng mi de ni ni mu mokke mm-hmm. bu dee ca tool yaa mun a salaaw gis naa ne wàllu yar geeg dem tool ak yëpp dafa dafa nosee loolu dala koy wax xel la ataaya mbaam wax ko jox la jox la ay canette su boobaa nag da xam ne kon yow mii yaa ngi dox nit buy dox da nga naan ko yaa ngi dox bu taxawee nga ne ko taxaw nga waaye bàyyi bu mu taxaw nga ne ko loo fiy taxawee te mosoo doxam nag loolu day indi jafe-jafe sëñ Mbàkke macha allah eh, yëpp mu nekk ay bind yoo xam ni ki koy diglu ak ku mënti doon rek yow yaay jéem a sol mbubbum Cheikh Saliou Mbacke yow mi ñu di wax yow itam yaay taxaw taxawaayu mhm. kooku nga xam ne dóor na xale bi te njuumte waral ko su ko defee kenn ku si nekk bu taxawee ni mu war a taxawee solution dana am te itam jafe-jafe du léegi nag euh, ki nga xamante moo war a taxaw ak xale yi waaw benn muy muraqib mooy wala benn muy ki nga xam ne tam xale bi ci xalxaam la ñuy yellu suba dafa nekk guddi nekk fajar kooku di taxawoo ak xale yi yan comportement lañ war a seen si moom ak itam nan la war a jëflante ak xale yi ngir que ñu mën a jël comportement bu ñu màggee loolu boo ñu sa jox modèle ci Cheikh Saliou Mbacké yan bind nga ci joxe pour que nit ki mën koo roy. muraqib hmm. daanaka mooy ab yarkat ndax moo sañ na toogal moo sañ na jógal moo sañ na noppi moo sañ lépp jàngalekat day joxe ilqa hmm. muraqib nag yataraqab hmm. al muraqaba mooy contrôle bu xale bi defee lu doon nga ne ko eh yaakaar naa loolu yar sëñ Mbacké waaw su defee lu mu wat def nga ne kon eey loolu mooy yarkat kon muraqib ab yarkat la mais mais kooku wër dañ nagas de danaa ci ñëw mm-hmm. sëñ Saliou Mbacké muraqib la woon nañ jël sañ Saliou Mbacké ka muraqib modèle wala naam comme waaye sëriñ bi bu donga masaana ñëw ci kër gi li muy njëkk a defa mooy day taxaw yow ñetti weer mm-hmm. yoo xam ne doo xam daara joo jëm da sañ ci moom néeg ba muy fanaan fa ngay fanaan yaay njëkk añ yaay njëkk reer yaay njëkk ndékki te donga bu dalagul basin miim nga xamagoo sëñ bi buy dem ànd yow si oto bi. yaay dugg bu kenn naree manqué sax moo ci am ak dugal gone. yo bu la yóbboo ci daara ba wan la daara ji yow gone bu ndaw de boo noppee ba mu ba bay wër daara yëpp mën la bi la ci gënal. nga xam ne yow boo ñëwee da ngay da ngay seen kër. da fàtte seen kër. ansihim bi abaahum kulla xiini day fex day fexe ba dootoo xamante dara ci lu dul daara ji. Hmm. te tàmbalee goo jàng bokk na ci ak xikma. mun la fa foo bëgg a dem. xikma gi ah. day fekk ne sëñ mbàkki surang nga ca daaree njàppandal gone gu sant surang boo xam ne bàyyi sañ mbàkki surang wala sëñ mbàkki surang bàyyi la ci moom ci aada mu ne ko dama la yóbbu ci sëñ mbàkke day fexe ba ñi bokk ab dëkk da da leen dana da leen daan lënkale lim jublu mooy yow ginnaaw seen dëkk boo ko bëggee waxtaanee yéen a bokkoon dëkk loolu la du ma la ndax <laughs> loolu sax doy naa ci misaal bañ ñëw ma comme comme njenn lagan waaw la tudd tudd lagan nañ ma yóbbu lagan waaw ngir ko boo mënee ngay man di miinante waa dëkk bu ñu di fa ñëw sëñ Sidi Bara Gueye maa ngi ko nuyu baax doomu sëñ Souley Gueye mm-hmm. mu ne ko comme njaareem la jógee mm-hmm. dañ ko yóbbu Ngéejaan mm-hmm. ngir bu mënee dox dem njaareem dem dañ demee nag ba nga xam ne moom léegi environnement bi miin nañ ko mu ne comme kee moo la mag nga dem fekk ko fekk ko Ngéejaan <laughs> nga xam loolu loolu loolu technique la te na yëpp mën na ko si bañ a fekk na weesu na loolu sëñ Sall daan dem ba dajalee séeréer ni leen lakkante leen bala ngeen fàtte seen làkk yi day teg ci ci njoowaan gi lay toog groupe séeréer ga nekk fee mu leen dem leen lakkante ji ndax lan inaas wettalikonte gi ñuy wettalikonte ñoom en tant que ay séeréer ak langue bi bu buñ ko gëjee wax loolu la daan def kon bokk na ci muraqib wala ñu ne contrôle wala ñu ne koo xam ne mooy yarkat surveillant taqoo suñu sal daan wax naan ab tarbiya taqoo koo mënta gis mënoo koo yar li ëpp ci ñuy yàqu ci daara yi ginnaaw bu bët fàddoo ci ñoom lañuy yàqu li ëpp ci ñiy gaañu ci daara yi def accident ginnaaw bu bët fàddoo ci ñoom lañuy def sob kon at tarbiya bil te koo gisul mënoo koo yar sëriñ Mbàkke waraloon na nag sëñ Saliou ba tey maa ngi ci moom bokk gone yépp fanaam ci mu néeg li naftarida parce que al masail daiman bil iftiradiya takun nañ ñëw ci leeral goo xam ne ci lay gën a mën a leere doomi sëñ Tuubaa doy na sëkk ndam ku gane àdduna quinze fanaan ak gone quatre-vingt doy na sëkk ak mage gone bis boo ci dajee dajalee téeméer ñoom ñëpp ñu fanaan ci benn néeg doy na sëkk ak weñse muy ay jafe-jafe sëñ Saliou li nga xam ne fanaan si na ci daara ji mooy gone gone fa ko daan yee doo ko fa fekk da koy fekk mu dem ci kër sëñ ba defe naa loolu jaaroon nañ ci yeeg lal baag yépp ñooxu ko ñooxu goo xam wax dëgg yàlla duñ ko def seen i yaay duñ ko def seen i baay te lépp daf ko daan yanu niki noonu waxanteeg ñoom ni ngay ñëwee jël sa gaal gi bës ko ci ron lalu sëriñ bi def ci sa miskit ak sa tàngal da nga ñëw ne ko sëñ bi mën a mbàkke mën a la ah, nga ne ko damaa manqué ay keesi miskit mu ànd ak yow di ko seet naan la seetal fii seetal ba yàgg gisoo ko léegi nag boo gis mu ne lu ciy pexe nga ne ah xanaa nga fay ma sëñ bi ne ko da ngay toog ba am miskit fay la hmm. loolu xapp fu alxatf. waaw yaa ngi jàngal waa ji ñeewante et puis yaa ngi yaa ngi wane ni ku am ku amul ubbeeku nga. ku amul ubbeeku. alam nashrah laka sadrak inshirahu sadrak. waaw man sharaha lahu sadra lil islam fa huwa ala nur min rabbi fa waylun lil qasiyati qulubuhum doy na sëkk aw ŋàññi. ku ku sa xol wow doy na la sëkk gàcce ne waylu ngay tàbbi. nga xam ne yow sa premier kàddu moom gëdd. day tar day ñagas ba day mujj xale bi loolu lay koppi si yow sax. waaw ah, kay na léeg nga dem ci daara joo xam ne xale yi ko nuyu daanaka da lay gëdd. Mm-hmm. mais mais la plupart boo ko xoolee. ka ñuy taxawal moo yor comportement. waaw ah, kay léegi nag sëñ bi nag noonu mu lay def ba nga xam ne dem daara jot mu dugg la ci oto boppam muy dem bàyyi la fa bés bu ñëwaatee ci daara ji yow lay njëkk a laajte ana moom nu mu def ñu dem wooli ko ko mu takkoowaat ak moom. jox ko yu baree bari ci ay yóbbale ki sëri ca laaj ko ay yére mbaa dara sikku ca nga xam day àgg ci nga dem yoroñ sa yére yépp andim ñu waññaat ko ba xam lu mu mel ba muy am jot muraqib dëgg la woon loolu bokk na ci li nga xam ne may na ko lim am ci gone yi bi ki des dóor li nga wax léegi xaswa sëñ Saaliw dafa daan wax naan kiy jàngale moo sa a xëbal ku fi jàngaliwul koo fi dóor day fayu mbaa nga jox ko ndàmpaay wallaay la azim mu ni kii mu ni kii jàngale moo sañ a xëbal man a dóor yu yem ku fi jàngalewul nag ak loo doon ci kër gi bis boo dóoree nit day fay sëñ Saliou toog na ba tay gone gu ndaw gu am fukki at ak juróom fayu ci mag mu am ñaar fukki at ak juróom ngadd ci kanamam wala mu daggum yar dóor ndax nee na dóor fayu yaram mel na la woo ci dóor bu metti nga xam ne mi ngi jàngalaale xale bi maam jom ak fula ak bañ a tooñ waaye nag bu mu nangu ko ko tooñ am na ci ba mu defoon bu garaaw hmm. ñëw di siyaare hmm. bi ngóor si jógee wax yow yow Cheikh Matar xam naa foofu nga teg sa baram sax suñu numéro incha allah 14. Euh, mhm. ñu sof ko foofu parce que wax ji am na solo waxtaan boo mhm. xam ni. Mhm. Euh, dafa yitteel dafa yitteel nit ñi tey wax dëgg li nga joxe ni tey euh, bind la. boo xam ni képp boo xam ne yaa ngi yaa ngi diglu. mën nga see jàng ay bind. mel ni que infitaax. infitaax fokk yow mi nga xam yaa jiite. nga am genn ubbeeku gi. bañ a bañ a bañ a bañ a am xol bu xat. te it am lutfu ndax inna allah latifun bi ibaadi comme yàlla mi bind jaami sax moo am ak ñeewante si ñoom inna rabbi latifun lima yasha kon yow mi nga xam ne ab jàmm nga yàlla dénk la mbooloo nga bëgg mbooloo moom nga jëlee leen fu suufee yóbbu leen fu kawe il faut nga am comportement yi maam ubbeeku dënn ñeewantu bëri yërmande waaye jege itam ñi nga xam ni eh, ñoom nga yar xam naa si maxtaar sa tënkoon na ko tënkoon na ko ci baat bu gàtt hmm. dane sallahu ki ci gën a nangoo jaxasoo gone yi gën ci ëpp yërmande ñaare mooy gën a man ci gone yi li ma bëgg te mooy ki ki ma mën a taxawul sama ginnaaw gone yi macha allah <laughs> daanaka loolu moom mooy mooy mooy lépp mooy mooy jawaamil kalim kon mbokk yi <laughs> eh, suñu émission yaru ak yare tey si numéro 13 foofu la ñuy yam ak yéen di leen jox dox daje si beneen numéro incha allah wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala barakaatu